Euh, jërëjëf ti mbokk yi seetaan ak déglu yéen ñi doon laaj graisse su mbët bu naturel bu baax bi mën ngeen woote ci numéro bi xam ngeen ne graisse su mbëtt lañ koy àndal ngir mu ànd ak moom ngir nga mën ko jëfandikoo bari na ku ci nekk nag ak li nga ko soxlaa kon yow mi seetaan ak déglu te dañu bàyyi xel graisse su mbët gàngoog wooteel ci numéro bi ngay séen soo ci wootee di nga am ci graisse su mbëtt bu baax bi kon graisse su mbët daal yow mi ko soxla xam li nga koy doyee ci anam yu bari jëlal numéro bi nga woote ci soo si wootee di nga am graisse mbëtt graisse mbëtt gaa yi nga koy wër soxla ko lool ndax ku ci nekk secret bi nga ko xamee pour defee ko ko waaye jafe-jafe bi mooy ban moo ci baax ak ban moo ci wóor ak fan laay jëlee bu baax bi kon jëlal numéro téléphone bi nga daal di ci woote wooteel ci téléphone bi mooy tax nga am li nga soxla muy graisse mbëtt la ko soxlaa yow yaa ko xam waaye jëlal bii bii baax na bii bu wóor la bii bu naturel la bii bii daal mooy bii jëlal numéro bi